maaleykum waaw ça va. waaw saa ñu ngi ñoo ngi ñu ngi lay nuyu baax. waaw ñu ngi lay ziar ku baax naka mu. waaw ñu ngi si station bi fi affaire bi amee woon trois heures du matin euh, mbir mi nu mu demee. d'ailleurs dama génn sama kër gis la euh, ngay daw ay xel ma arrêté la ni mu la arrêté nga ni ma dafa am ñuy ubbi fii si laa duggaale ñëwaale léegi mbir mi mën nga ko expliquer. waaw mbir mi ne moom daanaka presque booy xool moom ñëpp ñun ñëpp la bett. Hmm. parce que ñi lañ toogee suñu oto yi di waxtaan. ñu toogee di waxtaan ni daal jékki-jékki gars yi braqué suñu kanam sama kanam lañ jaar sax ni sama kanam lañ jaar ni avancé ñëw taxaw ci station bi ñu taxawee gars cëppeelu nit kenn ki mi ngi sol benn capuchon bu benn capuchon bu weex gars yi neen gars yi ay yére ñuul lañ sol ñu cëppeelu ci benn ñu yor benn karkaat bu weex bi ñuy cëppeeloo waa ji taw tourné jàkkaarloo ak man door ma bal tëll dama aj kattal ndeyam avancé damal ma daw xëccaat sama porte oto daal toog mu dóoraat bal dama taxaw bëgg a dem mu ma taxawal bul dem yaa ngi ci la daw engagé pompiste bi dóor ko ay jaas yi jël euh, booy bi sànni ko xaalis bi yoroon ko nee dóor na ko ay jaas dóor ay sonn mun na ko lii mu jël xaalis bi jox ko yeneen gars yi pénétré ci la jël euh, jaas bi mu yoroon dóor ko ci euh, verre yi moom tamit jël coffre-fort bi moom sax même gars yi sax ci boobu duñu ko yëkkati ne ko jàppal moom moo jàpp moo leen bi ñu aj ko ci kaw oto bi gars yi doog taal seen oto daw ñoom seen opération bi mel na ni non yàggul parce que affaire bi maanaam est-ce que matul est-ce que mën na lépp lépp sax matul sax dix minutes dix quinze minutes day tollal dafa gaaw quoi affaire bu gaaw fii Jakarta mel ni ñu ngi fi woon taximaan yi fii day xumb Jakarta yi doon dem di wooyu police sax man maa leen ne maa leen man sa bopp maa leen ne dem leen ngeen dem leen dem leen ngeen woo police man maa leen ko wax parce que oto bu mel comme genre oto bi leen taxaw ne la seen nga ko comme bii taxaw est-ce que nekkul comme bee comme bee la mel gis nga oto bi taxaw nee la mel nee la cëpp gars yi cëppaloo nee lañ cëppaloo man marque la oto bi si courant bu dul Suzuki bu dul Suzuki daal di Nissan bu dul Suzuki daal Dinizane waaw yëpp yëpp lañu fekk ci laa doog a pénétrer ma daw mais affaire bi daal yéeme na daal wax yàlla bu bëgg a dégg gaaw na et puis affaire daal doy na waar bali bari na gars yi daw nañ minutes après la police ñëw bi ñëwee fekk ñu dem police muy ñëw sax avant muy ñëw moom ëpp na sax dix minutes parce que naa ay vingt vingt cinq minutes woo leen mais ñëwuñ police moom daal dem nañ dafay jeexee daal la